li koor gi di yub si moom moo tax euh, jot nañu question yu bari yoo xamante ne dafa jublu ci koor gi oustaz kii nag moom mu ngi laajte mu ne ndax kii woor mën na bañ a julli tout la journée ak après lan moo ko ci xaar mooy li ma doon wax sànq kiyaa gis nga kiyaa dafa am yoo xam ni boo ko dee def ci bëccëgu weeru koor du yàq sa koor mais dafay wàññi say tiyaaba mhm. gis nga lu mel ni ñàkk julli maanaam ki woor ba pare te du julli. Uh-huh. mën na am koor. ah mais ay tiyaabaam day wàññeeku. ñàkk julli yàqul koor. ah déedéet. boo demee ci yàq koor ñàkk julli bokk ci mais dafay wàññi sa tiyaaba boo waroon a fayeeku dix trois ngay laal. Ah, waaw jaru ko waaw loolu de la. naka ngay wooree te doo julli. àndul de xel ko. parce que yow bi nga bàyyi ak bi ngay def bi nga bàyyi moo gën a màgg bi ngay def. parce que julli moo gën a màgg koor. waaw léegi. kiyaa julli ak woor ban moo gën a yomb. julli yow mën ngaa mën ngaa woor mais mënoo julli. <laughs> waaw ñoo xamante ne <laughs> loolu ñu naan téye kii yow téye kii. <laughs> Ah, léegi nag boo wooree. da ngay fexe ba mboolem lu ñu la sant ci ibaadaat yi te mooy jaamu yàlla yi nga respecté ko. Mm-hmm. man la ma xamoon bu njëkk sax mooy ñi daawul julli bu koor ñëwee dañuy julli. dañuy sellal loolu la ñuy wax dañuy sellal waaw. ñi daan traité kaa ñëpp pause. tëj groupe bi jànq cas am na kaa bi daa danse <laughs> après ndogu. waaw ah, loolu de la sellal tuuti. léegi nag. Mm-hmm. ki nga xam ni moom dafa wóor dafa war a respecter julli juróom. Mhm. parce que carnet bi nga xam ni mooy denc sa jëf yi nga jëf ci koor gi julli yi daf koy diisal saraxe yi daf koy diisal. Mhm. jàng alquran bi daf koy diisal. Mhm. gis nga kiyaa booy déposer visa. boo wutee kayit yin la laaj ba wut sax yan la laajul boole ci daf koy gën a dëgëral rek. mooy tey ki woor di jàng alquran mhm. ki woor di saraxe ki woor di jël alalam di ko dimbalee ñi néew doole xam nga social baax na waaye ci weeru koor la gën parce que weeru koor boo ci saraxee mbaa nga def ci social dañ la koy dubleel gis nga bari nañ kuy contester ñii di defar ay kafe ci mbedd yi. waaw waaw mais dara nekku ci. waaw dara nekku ci dafa rafet parce que am na jaamu yàlla bu dox ba yem ci ñoom. dëgg la. man daaw. Mhm. damay dem benn dëkk bu sori dog fekk ma ci kaw tali bi. Mhm. ma yem ci ñoo ñu taxaw ci kaw tali bi di séddale di séddale café ma freiné. Mhm. ñu may ma café may ma tàndarma. waaw tiyaaboo kese la. ma ni ñii budul woon ñoom doo mën a dog sa koor. bi vrai que ni ndogu mi ngi lay xaar feneen. mais nga dog sa koor. ka tax nga def ko yàlla da koy fay. bilaay dëgg la de moom. dëgg la yàlla daf koy fay. bu ko defee social ci koor ku ko mën a def. ki yaa nga def ko waaw ku mën a def social ci koor gi nga def social loo am nga bañ koo xeeb fexeel ba jox ko ay jullitu yàlla yu woor. Mhm. sunu borom bindal la tiyaaba. Mhm. kon koor kenn du ci nekk di bañ a julli. wala nga woor ba pare di dajale boru julli yi. di ba ndog. bàyyi bañ ne dog jot na nga bëgg a taxaw di liqaam rek tisbaar takkusaan timis ñii ni buñ wooree mënuñoo julli ñii buñ wooree naqari dara. waaw ah, booy wër rond bi koo njëkk jël rond bi mu wàccee verre bi wax la lu ñaaw. Ah, xiif mer. koor gi ñëppay mer. ñëwal paas nga mer. <laughs> ndax yooyu yëpp ñu di ko bàyyi xel day am solo. yàlla na yàlla defal tawfiq <laughs> alors oustaz